de l'État vis-à-vis de, de, de de du principal opposant jàpp fii tëj euh, bari euh, kii këram d'ailleurs il faut avoir l'occasion il faut ouais. dire aussi ouais. même ce qui se passe actuellement c'est pas normal ni ñu barricade c'est pas normal parce que état de droit mooy appliquer la loi gouvernement warul demande citoyens yuy appliquer la loi te moom du ci jiitu te te blocus boobu ba léegi waxuñu fi benn explication bu taxaw. y' a pas y' a pas d' ordonnance. waxuñu fi euh, ñoom ils disent seulement qu' ils l'ont fait au nom de la paix civile. que euh, Ousmane Sonko depuis Ziguinchor a appelé à déloger le le régime et donc il se met en marge des lois. et de la République dans mais dans ce cas nag non non loolu loolu kenn du loolu solution. amul lu état def te ñu ko teg ci yoon. l' état de droit mooy la primauté de la loi lu état di def daf koo teg ci kaw yoon. justifier fu fu fuñ fuñ ko fu mu wér beneen élément boo xam ne normalul ba bâtonnier des avocats intervenir si. mooy li ñu tere avocat mi dem seeti ko loolu jaaduwul te quand nag ordre des avocats gouvernement daf ko war a respecter parce que parce que euh, euh les avocats yi dañuy jouer bu important ci affaire état de droit donc bu ñu interpeller rek nañ leen déglu lañ leen def bañ fa demee lu ñaaw la parce que avocats yi dem ñu gazé leen. parce que tamit il faut qu'on soit même pouvoir bi tamit fois li ñu def dafay ëpp day jéggi dayoo ay juróom fukki avocat ñëw taxaw waxalax ñoom ci jëkk teraanga ñoom wax nañu bay dem di dugg seen oto nga sànni leen grenade lacrymogène ça se fait pas c'est-à-dire dañu créer benn psychose euh, sécuritaire boo xam ne. parce que yow da jàpp ne dans tous les cas. Mm -hmm. euh, Ousmane Sonko a le droit de recevoir. et de s'entretenir avec ses avocats. mais bien entendu dans tous les cas amul kenn ku nekk situation boo xam ne amul amul droit accéder à avocat bu ko bëggee même ku nekk prison à force ko xam ne amul peine de prison këram la nekk ñu teg ko blocus boo xam ne dëpp euh, méngoowul ak yoon je ne vois pas sur quelle base ñu tere avocat di ko gis hors des avocats des bâtonniers ne parlent pas au li ñuy wax dañ ko peser seet ko seetaat ko bu baax. def une interpellation publique donc man maa ngi ñaan autorités yi ñu déglu loolu waaw nañu déglu loolu euh, régler situation boobu parce que muy blocus beex empêcher accès avocat yi Ousmane teg wul ci yoon te état de droit bu état bëggee exiger citoyen respecter la loi moom war a jiitu ci respecter la loi alors état lan la war a def ci ci ci situation bile mu bàyyi nit ki mu vaquer à ses occupations wala bu fekkee ne dafa jàpp ne dafa am lu mu koy reproché mu jël ses responsabilités. L'État day assumer responsabilité